li mu waxoon ci faar bi ça ton un exemple patent ci période pandémie yi lañu fekk benn waay mu teg ñetti caterpillar ci suuf ci ci bëttu faar bi. bien di gas. on se rappelle oui. Mm-hmm. période pandémie kenn ci ñun bu dokk boo ci convergence africaine contre l'accaparement des terres woo ma ci guddi gi yónnee ma message ne ma ah tonton fii de gis naa fi benn caterpillar bu ngi liggéey ci guddi ñoo ngi gas di yéeg. j'ai diffusé information ci suñu réseau africain bi les gens de la de la l'Afrique conférence africaine moo di mais vous avez la mission vous yi fa ne yéen ñi fa ne d'aller régler ça ñu xëy dem foofu bi nu yeggee gis ratripla gis chauffeur bi ñu ne ñu mu ñu ne dañ may liggéeyaloo rek ñu jàppante ak ñoom bi wàcce leen ci caterpillar yi woo presse bi ci mujjantal gi ñu fexe bi am kayit bi nga xamante ni moo taxoon waa ji ñëw tegu foofu kayit boobu on l'a signé deux mois avant que les quatre piliers ne soient mis en place ci impôt impôt fii Almadi. Ngor Almadi. Mm-hmm. et en pleine pandémie nu jël kayit boobu photocopier ko envoyé ko directeur des impôts envoyé ko ministre de l'intérieur ne leen mais lii na ngeen ko mën a seetaane pandémie ñëpp bureau yëpp tëj pratiquement ñu liggéeyee à distance kan moo mën a jox kii kayit ba mu ñëw ni daf fiy def euh, étage euh, hôtel wu sept euh, étage mu yegg ci président mu wooñu on lui a expliqué le problème mu ne mais il a appelé sur place au téléphone le ministre de l'environnement nekku fekk si ma le ministre de la pêche fekk si ma le ministre de euh, des finances ne leen nag def leen tout ba bloqué ba récupérer ces ces ces papiers là comme ni ko honorable si si waxee bi ñu récupérer papiers yi on avait convenu que nañ toj affaire yi à commencer celui de Wami Wami est une ONG islamique qui est venue mmh. s'installer Moi, je travaille dans les ONG depuis bientôt 30 ans. Je connais toutes les organisations gouvernementales de l'Afrique et du monde en tant que coordonnateur du Forum social africain. Et j'ai dit à ces gens, cette ONG-là, sa place n'était pas ici. siège boobu tey bu fekkee député nga yow député nga fexe leen suba ngeen dugg foofu man jéem naa fa dugg ñu ne ma doo dugg ma fexe ba dugg fa gis un système de raccordement de fil souterrain de câble souterrain une ONG n'a pas besoin de câbler souterrainement. Mmh. Et il donc quelque chose qui n'a pas été dit. loolu bokk na ci jubanti et j'avais dit man président principalement au président une ONG bu buggee siège na dem fa di jam ñaajo mais bëtu faar bi janoog ancien champ de tir de nos militaires janoog le flanc du phare des Mamelles qui est un système de communication maritime naviga navigation maritime et mais nan lañ def ba loolu continuer. mais parce que dañ la jox autorisation. <laughs> Descos ñëw na fa ba arrêté mais ci ci ay guddi lañ daan liggéey ñu dellu fa benn jour xaw a jàppante ak ñoom donc je crois que c'est tout ça qu'il faudra régler et pour le régler il faut avoir un benn courage politique. Mmh. il faut avoir de la sincérité dans la gestion. il faut avoir doylu sëñ Cissé mhm. benn alal doyul xam nga lan mooy alal doylu mooy alal <laughs> évidemment je bu voudrais pas que ñu réduire émission bi ci foncier littoral bi particulièrement bëgguma sax ñu réduire ko ci foncier parce que xam naa ne bu ñu waxul ci yeneen ressources yu mel ni ki ndox parce que combat bu ngeen porté la miñaan di nga ma mere ressources extractives parce que aussi OCDEA aussi spécialisé na ci wàllu ressources extractives peut-être Cheikh Omar ñu mere